nguur jibbal boromam donte ay mbokam ñen ci ñom nak daan nañuy taxaw temb que ne nak nag leen jébbal seenum neew ñu denc ko lool nak euh, du mëna antu nga xam ne nag euh, moo Ba procureur bi jibbal na mbir mi wa division des investigations criminelles ngir ñu amal ay mbët jëm ci mom manam daal ñu gëna def ay enquête euh, jëmale ko si jëmm jooju nga xamne nak nag ko na fi ñu ñaanal sun borom yërëm ko xare ko daw ci ba nga xamee nak am nañ ay njortu ne nag ak faatoom nekkul nat lu bañ doon wax ne moom mi nag dafa yoroon ay dossier yoo xam ne daal yooyee dossier ab nañ ne dafa am lu war a leeral mu nekk nag mbir moo xam ne daal nañ doy waar nañ si ñëw ak ay révélation yoo xam ne nag bees na ko si amal sax nag comme ni ñu koy defee saa su nekk ñu teewlu vidéo bi lu ne mën a xam na ko da xamul dara wax ji muy wax nag defe naa wax na ma ko même keroog bañ ne Mamadou Moustapha Ba dee na daf ne déewul Sénégal kat ba ma ne man day am naa ci njaaxle nañ ci def ak jàngat dafa ne wadet moom Abdou Sy Sakho mii ne ma déewul France de ma ne ko déet France waaye Sénégal la feebar di loolu laa ko wax kenn am na lu ma ko bëggoon a wax danaa ko xamal ne ko quartier la clinica quartier la clinica quartier la clinica quartier la clinica dafa am lu koy indi maanaam fokk docteur bi médecin bi moo lay suivre ba nga dee par exemple France France defe naa wax naa fi keroog nga leen Abdou Karim Guèye mii dafa feebar ma koy jot ca hôpital ba di jot soxnaam ñu ne day dem ñu ne nañ ko yóbbu mën a ko bul dem man mii man ma jóg mii boo ko laajee mën a wax dëgg mën a ko bul dem France boo ñëw demal def naa wax naa ko fii ci groupe bi demal Italie ñëwal ñëw Allemagne laa ko wax Allemagne wala nga ñëw France wala nga fii. parce que am na ci hôpital yoo xam ne ñoo gars yi benn lañ Macky Sall sax waxoon na ko fi waxoon na ko fi moom nag daf ne woon am na ñoo xam ne bu ñu feebaree dañuy daw dem France ndax seen cartel clinique lañ bañ ko xam waaye nag waxi Macky Sall ndax ba mu ko waxee doon na def lu ne pour xool cartel clinique ko def naa loolu ñëpp fàtte kenn fàttewu kon cartel clinique mooy li nga xam ne da ngay suivre docteur bi daay suivre médecin malade ba mu dee su boobaa da ngay ñëw ñu joxe ko nga xam kii li ko feebar ba li ko rey mais amaane coxam na naanu kafe boppam metti ñu ne dafa nii dafa naa ñu daw dem France loolu mu àgg dee France mën nañ ko bañ a xam docteur dama bëgg nag wax joo xam ne moom lay waxal ni yamale fi mooy na ngeen xam bu baax li procureur ba xam nga dan la wax daf ne dama jot ay renseignement lettre bi mu bind ngay ab dossier ngay wax daf ne dama jot ay renseignement procureur de la république moo ko def nag waxoon naa ci suba ne bu xasee ba wax lii ma El Hadj wax du waxi dara du seen wax du du compté waxi procureur bi moo compté moo compté te defe naa ba ma ko am deux secondes nga ko gëm ndax bu leen fàtte ne Didier Badji oh non Fulbert Fulbert Fulbert Sambou gis nañ ko fi rek ne kenn mënu ko autopsie ba tey kenn autopsie ko ngeen bàyyi ci xel kenn tegu ci baadaa ah. wadd wadd ji nga ab dossier kenn di foofu. kenn tegu ci baat ndax procureur moo ne kenn mënu ko autopsie donte ñëpp ne woon nañ lu garaaw ndax fii gis nañ fi ku dee sax ñu suul la suuli la autopsie nag kon naka la nit di dee daanaka ci semaine yàlla matu ko sax ñu ne kenn mënu waaye nag ànd ak ñu kenn tegu ci baat dëgg la wala du dëgg li may wax kon procureur boobee nag doo wax mukk ne ma jamonoy Macky Sall lii mënoon na ko jamonoy Sonko lii mënu jamonoy Jomaay lii mënu ko loolu du dëgg kon kon léegi procureur daal di def ne lettre bi mu bind def ne dama jot ay renseignement renseignement yi nag fan la jóge loolu mooy li ñu war a war a taxaw loolu mooy li ñu war a xool procureur de la république waaye nag dama ne bala fee waxi renseignement man maa njëkk wax ne sama xel dalu ci wax naa ko fii ci groupe bi asi yow laa ko wax Abdou Sakho groupe Kayor lañ ma ne la man sama xel dalu ci nga ma ay njort lu ñaaw ma ne la yàlla de lu leer la wax inna baada zanni la wax lenn njort waaye wul lépp njort déedéet lenn njort wax ne bàkkaar muy lu leer nañ léegi pour de la république ci boppam moo ne dama jot ay renseignement renseignement yi nag fan la war a jóge loolu mooy li ñu war a jàpp fan la jóge ndax France gee ci seen bopp fa la jóge wax la nee nañ ba dañ la naturel kan moo naturel la waaw naturel la waaw waaye seen renseignement yi jóge ndax foofa la ab laaj la ndax fa la génne àdduna renseignement yi gu procureur di wax ne moom la jot bari naa nañ njëb autopsie ndax dafa jóge Sénégal ay famille ndax am na keroog ku waxoon ne nañ def nañu nañ am na ku njëkk wax ci ay mbokkam ne moom daal mbir mi xelam tey nañ waxoon dugg la daal audio bi ndax ci kooka la ndax renseignement yi dañoo am écoute téléphone téléphone boo xam ne gis nañ ne woo nañ Modou Moustapha Ba ndax ku mel ne Yérim Seck nee na gisante na ndax moo ko jox café ndax keneen a ko jox café ndax leneen ndax leneen ndax leneen moo nekk café rek nga poson laa dugg wax Yérim Seck nee na na am na sax Babacar Gaye ci boppam dégg ngeen mu ne maanaam coow li moo ko rey ndax gor kenn du coow ci moom Babacar Gaye ko wax da ko yaa mën a fenn yéen bu fekkoon ne góor ko coow mu dee xanaa yéen dee ngeen bu yàgg kon yéen ñëpp dee ah? kon kon kon procureur de la république ci boppam nag ku ne xam ne kooku du nit du moom du n'importe qui kooku moo ne ay renseignement laa jot fa mu jóge nag man xaw ma ko waaye dama ne ndax France la jóge fa mu fa mu giraat ndax famille bi la ñeen ñoo ko wax ndax ay écoute téléphone la jot ba xam ne kii fokk mu def autopsie bi léegi nag la ma waxoon rek fa lay jeexale mooy comme moo ko santaane bu ñëpp doon dee du na ko def ndax kooku mooy procureur de la république firnde bi ma ne la Didier Ba Fulbert Sambou bi mu génnee àdduna ñetti fan xaw ma ñeent bi procureur bi ne kenn mënu ko wutul si kenn tegu ca baat kon defe naa ko jooju ah mais bu fekkee lii ay falsifié la kon lii gars yi nañ si jël seen ay matuwaay waaye man de bu dee dëgg la laa wax bu dee li ñu wax dëgg la gars yi xool nañu ba xam ni lii du deewu naturel. wax deug yalla ay mbokam lañu wara def moy tok xaar bañu paré pare ñu jox leen seen mbokk ñu dem xoli ñu dem suuli loolu moy deug yalla ci wa yow mënoo di yor sa mbokk ñu wax ni dafa dé dé bo xamni jaarul yoon ñu ni yoon di ci def liggéey nga bëgg tek pression yoon ni na la jox ki yow kon yow wax dëgg yalla ya quelque chose. sa man nak li tax may wax moy lu lu lu jub la wax waaye bu ne nak ay falsifié la ay tiaxan la ay tappa la yi tamit wonna mu jël matuway bo xamanteni ni lu melni dotul am ci rew mi. waaw parce que nag ñu def nii nit ak dëgg yàlla kilifa gu toll nii gaañu ñu naan procureur nee na nangam wala procureur signé kii na signé na fekk loolu lépp ay fake news la loolu moom gaa yi war nañ si jël seen ay matuwaay yu yu sévère yoo xam ne lu mel du amati waaye nag li tax may wax mooy bu dee dëgg la laa wax gaa yi def nañu seen autopsie xaw ma autopsie xaw ma xam ni dee bii am na lu ci rax waaw ñuy def liggéey am ko taxaw fee ni jox ñu dem suuli kooku lañ war njëkk wax dëgg yàlla koo fekkee laajte lan la lu xew ah yow sa mbokk dee dee bu bu lëndëmee nii bu doy waar nii ñun la taxawal ñu leeral ko yow loolu Abdou Aziz da nga si war a sant yàlla man de bu doon man la dama ciy bég ñoom mbokk yi ñoom ñoo njëkkoon déclaré ni nan leen defal ay gëstu ci seen deewu mbokk mii ba journal yi wax ko léegi defal nan leen ko gis nañ ci lu lëndëm nga taxaw ni nan la jox néew bi nga suuli ko ah waa ji war waa ji de xaw ma ñu ni enquête waaye kii Abdou Aziz kii war na bokk si ñun war a njëkk enquête li tax mu bëgg profité waa ji nii bëgg patam patamee yóbbu ko dem denc ko lan la luy lan la ah man de bu dee gars yi dañuy xool piste daal piste ngi nii waaw yow koo xam ne gaañu la xool nañu ñu ni dee bi nekkul naturel yow kay yaa waroon taxaw nii déedéet na lépp leer waaye profité jox leen ma gaaw ma dem pëtam pëtamee gas suul